salaamaaleykum gars yi na ngeen def maa leen nuyu leen ziar leen fàtte ngeen seen programme euh, comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube. Euh, vidéo tey bi nag dañ koy def ci li nga xam ne mooy analytics laa leen di won tuuti quelques données analytics lecteur lecture euh, de base bu ngeen ci mën a am pour ngeen xam ngeen am ci tuuti notion ci li nga xam ne mooy analyse donc analytics. mënuñu leen si demal à 100 pour 100 parce que dafa xóot données yu yu yu bëri lay joxe mais ñu def ci benn survol pour ngeen comprendre nan ngeen di lire données yi nga xam ne moo nekk ci analytics vidéo tay bi ci loolu lay nekk euh, ñi nga xam ne nag monétiser ñu dina leen jëriñ pour ñu xam ci yenn type de vidéo la ñu war a concentré wu yenn type euh, nu mu la ñu war a ciblé yenn zone géographique yooyu yëpp dinañ ko mën a xam mais ñu monétiser rek surtout ci seen wàllu monétisation ñu gën a xam nan la ñuy pour augmenter seen kon vidéo tay bi ci ci analytics lay nekk kon ñu dem directement ci ordinateur bi euh, won leen euh, cours tay bi ci analytics. léegi boo connecté woo sa canal euh, automatiquement boo ñëwee nga cliquer si logo bi comme d'habitude nga dem YouTube Studio boo ñëwee YouTube Studio waaw automatiquement YouTube Studio ubbeeku après nga ñëw analytics comme cours bi tey ci analytics la moo ngi nii fii ngay ñëw analytics. boo cliquer analytics analytics daal ubbeeku voilà page d'accueil bi lii la analytics mu ngi nii lii mooy page d'accueil bi mu defal la donné analytique de la chaine voilà information yi nga xamante ni YouTube analyse yi muy def ci sa chaîne bi pour lenn lu lekk mu wax la ci information boo xamante ni ñoom ñoo ko euh, bu njëkk ba ñoom ñoo ko doon gardeel seen bopp mais dañoo dem ba yàgg après ñu def ko noo xam ne nit ñi mën nañ ci am accès ah ci benn partie donte nag YouTube moom li ci nekk yëpp YouTube duñ duñ ko bàyyi nit ñi am ci accès parce que dafa bëri ay mbóot yu nekk ci xam ne nit ñi waruñu ko xam ñoom ñoo ko a xam mais daal partie ne ñoom yaakaar nañ bu ko bàyyee nit ñi xam ko tamit a dinañ leen mën a jëriñ pour ñu améliorer seen canal yi loolu moom lañ ba libéré pour nit ñi mën koo xam muy analytics donte am na site internet bu ñu am ñoom bu tudd euh, Google Analytics boo xam ni comme ni lii ni mu lay joxee information ci YouTube avant ñu koy def ci YouTube site boobu lañ ko jëkkoon def nga xam ni site internet boo munti ubbi mun nga fa dugal sa lien bi am benn code booy dugal ci site bi sa site bi après comme lii mu lay jox ci YouTube mu la koy jox ci sa site ku ci dugg fan la ci duggee ban heure la ci dugg lan la ci def page yi ñu visité yépp mu la koy jox information site boobu moo ngi tudd Google Analytics bu fekkee danga yor site internet te xamoo ko mën nga fa dem di ko utiliser parce que information yu yu am pertinence moom la lay jox ci sa site yu sa site internet léegi nag YouTube nag eh, YouTube nag jël ko waa Google jël ko intégré ko ci biir YouTube mu nekk léegi YouTube Analytics nga xam ni léegi dalay jox information ci sa canal pour nga mën a xam sa canal performance yeeg yooyu ak nan lan nga si war a mën a soppeek yooyu boo ñëwee automatiquement li ngay gis mooy ji nga graphique bi ngay gis graphique bi lépp information la foo toll fu ne gis nga foo yéegale flèche bi day am lu mu la jox voilà gis nga nombre de vues la lay jox par jour jour yi nga xam ne vues yi dafa wàcc jour yi nga xam ne vues yi dafa yéeg jour yi nga xam ne vues yi dafa yéeg yaa ngi xool fi mu defal le 26 vues yi yéeg na après boo bëggee xam lu tax yaay dem nga xool jour le 26 lan nga defoon ci canal ba vues yi yéeg voilà comme noonu lay nga dugal la nekk fii ne la nombre vie yi nga xam ne am nga ko ci vingt huit derniers jours yi parce que nga YouTube information mi lay jox vingt huit derniers jours la toujours YouTube information vingt huit derniers jours mi ngi nii vingt huit derniers jours ñu bëri na dañuy jaawale surtout ñiy monétiser xam ne comme xam nga canal bi monétiser guñ ko muy gaal seen tub bi ñi fii lay defal vos revenus estimés bu fekkoon monétiser nañ ko revenus yi fii li ñu amagum fii la koy bind voilà. donte dinañ leen si woon après benn exemple ci benn canal boo xam ne monétiser nañ ko wan leen rek monétiser fi monétisation fi ñu koy bind parce que leen parce que yeneen canal yi nga nekk si mënuñu leen jox ay information parce que canal bi li tax moom léppam lañ leen koy won mooy canal la boo xam ne spécial lañ ko defar pour formation bi moo tax lépp lu ci munti nekk duñ leen ko nëbb dañ leen ko wan ni mu amee voilà mais yeneen canal yi nga xam ne formation bi moom léegi-léeg bu fekkee am na lu laaj ñu dem expliquer lu ñu expliquer que leen ko mais bu duggee ci wàllu monétisation yoo xam dafay compliqué duñ ko duñ ko mën a wane voilà léegi bu ko defee kanaal bi bu su bu monétiser dina ñëw defal leen benn vidéo analytics boo xam ne spécial ci monétisation lay nekk wan leen monétisation bi nan nga mën a jëlee fi ay information pour di ko améliorer ci sa ci sa ci sa canal léegi boo xoolee gis nga fii mu ngi lay defal temps réel parce que lu tax mu defal la ko temps réel nii lii nii à temps réel lay daw fii nii sa nombre abonné yi benn abonné su ah, su cliquer abonné léegi léegi léegi automatiquement fii day change def cinq keneen abonné léegi léegi mu def 26 fii tam nombre vues yi kenn bu seetaanee sa vidéo fii day yokk def 727 euh, keneen bu seetaanee euh, noonu la automatiquement lii information bi ma la jox fii ci calendrier bi temps réel la koy def voilà vidéo bi nga xamante ni moom moo moom lañ gën a xool muy nekk ci kaw nombre vues bii bu jékki-jékkee romb ko booy ñëw fii bii wàcc noonu la koy defee boo xoolee baar noonu la la ko joxee gis nga gis nga chaque jour nan la ko jox di nga avant mu jox la 15 heures di nga 16 heures di nga defal na la fii mu def la hier diggante 2 heures du matin ba 3 heures demb fii mu wàcc di nga di nga 8 heures ba 9 heures di nga nit ñi seet xam nga kon déjà man xam naa ne 8 heures ba 9 heures presque chaîne bi kenn du kenn dugg si gis nga ñëwaat fi mu def pic mu ñëw fii 0 heure ba 1 heure lu tax 0 heure ba 1 parce que démb vidéo bi maa ngi ko dugal 0 heure net laa ko dugal ci internet. am ñu ñëw seetaan ko gis nga soixante onze personnes voilà gis nga moo tax mu def pic fii gis nga bi mu ñëwee fii ba di nga trois heures du matin di nga daa wàccaat di nga bi mu ñëwee nga na ñoo xam ne dugg nañ seetaan na dix huit personnes dix neuf personnes ñoo xam ne six entre six heures du matin ba sept heures ñu ngi woon di seetaan boo ñëwee ba fii pic bi mu amaat tuuti pic muy diggante treize heures ba quatorze heures gis nga quarante deux personnes dugg nañ information yi mu lay jox fii dina la tax nga xam yan heure la gars yi di gën a dugg sa canal yan heure lañ dul dugg voilà information pertinente la lay jox fii quoi léegi boo ñëwee fii mi ngi la defal di nga durée de visionnage par heure voilà 28 derniers jour yi passé ñi maa ngi ci am 585 heures la ci gars yi xool vidéo yi ñu ci xool yi boo ko dajalee heures yi 585 heures la nombre abonné yu bees yi nga xam ne yokk nañ ci vingt 28 jours yi 290 abonné ñoo si yokk voilà bu ñu ko méngalee ñoom ak weer bale passé 28 derniers jours yële si ginnaaw boobu muy nekkoon 181 gën na bëri waa moo tax boo gisee toujours foo duggee mu defal la flèche bu verte flèche bi mooy tekki li nga am nii par rapport ak yeneen 28 yi si ginnaaw bii dafa dafa gën dafa yokk moo tax flèche bi la lay defal su fekkoon dama am 180 ñoo ci yokk ci 28 derniers jours yu mujj yi flèche bi day rouge ba pare day jëm suuf voilà noonu lay demee mais bu fekkee flèche bi dafa verte jëm kaw rek mooy tekki yokkute la maanaam li nga am ci 28 derniers par rapport ak yeneen 28 derniers jours ya yañ mujjoon calculer daa am yokku-yokku noonu la gis nga fii boo tegee gis nga mu won la vidéo yi parce que lii mu def ni ay vidéo la play yi bouton play yi benn bu nekk vidéo la boo tegee moon la ban vidéo période ba ban vidéo la nit ñi doon seetaan ji nga période ban vidéo mopp vi ci période boobu ji nga ban vidéo mopp vi ni la koy defal ba mu egg ji nga boo defee nii ji nga vidéo ba dugal démb la gis nga noonu la la koy defal la voilà léegi gis nga vidéo le plus récentes maanaam vidéo yi mujjee dugal yi nga moom la lay rangaleel fii ji nga moo tax mu indil la fii yi si des yi nga mu defal la nombre vue bi boo cliqué boo fii ji nga day gën a ubbeeku ñi nga fii mu defal la euh, performance 14 heures 44 minutes après publication de la vidéo par rapport à vos performances euh, habituelles waaye gis nga mu defal la vie 133 mu def ko mu verte kon dafa yokk maanaam bi ma ko publier quatorze heures quarante trois minutes par rapport ak yeneen vidéo yi ma kili yi ma yi ma def affaire bi am na yokkute moo tax mu defal la ko nii di nga durée moyenne de visionnage di nga cinq minutes trente cinq di nga durée de visionnage euh, par heure di nga mi ngi la defal fii douze virgule quatre voilà noonu la ko koy joxe mën nga cliquer fii pour dem uti yeneen information mais comme dañ leen koy defal benn revue rek pour ngeen mën comprendre analytics fii mu defal la sa vidéo mu defal la vos vidéos les plus populaires pour cette période maanaam période ba léegi boo xale mooy 28 jours yi vidéo yi ñoom lañ fi gën a xool mu defal la un 2 3 10 vidéos yi 10 vidéos yi nga xam ne moom lañ gën a xool mu classé ko par or waaw par ordre de vue pour par ordre nombre de vues bi moo ëpp lu ñu ko seetaan bi topp si bi topp si bi topp si 28 derniers yi voilà su ma demoon def ko si bi ma kanay créé canal bi pare wala 30 jours wala information yi mën na changé mais 28 derniers jours yi la léegi ñu ñëw fii couverture couverture mi ngi nii gis nga mu defal nombre impression cent vingt huit mille impression huit cent mu defal la am na augmenté na quinze pour cent mu defal la ji nga taux de clic par defal la nga trois virgule six pour cent ji nga wàcc na douze pour moyenne douze pour cent wàcc na voilà par par rapport ak vingt huit derniers jours yi ñu njëkkee ji mu defal la fii nombre de vues mu defal la sept mille sept cent voilà gis nga mu defal la yéeg na deux pour cent voilà fi mu defar la spectateur unique maanaam par par nombre de par exemple euh, fii xam nga nombre de vues la defar parce que benn nit mën na dugg seetaan benn vidéo seetaan benn vidéo seetaan benn vidéo 3 lañ koy compter 3 vues mais bu dee par benn nit parce que lu mu koy xamee mooy appareil bi nga utiliser ak sa IP. bu dee par benn nit benn nit bu duggee ci canal bi seetaan 10 vidéo benn nit la koy calculer nombre de personnes yi nga xam dugg nañ seetaan vidéo bi ci 28 derniers jours yi nga 1700 personnes la ñoo dugg seetaan mais nombre de vues yi nga ne am nañ ko 7700 la voilà 7500 parce que des fois am na ci benn personne fii yoo xam ne dinañ dugg duñ seetaan benn vidéo moo tax boo jëlee moyenne bi mun nga jàpp kenn ku ne seetaan na 7 vidéo ci 28 derniers jours exemple comme la fii ba léegi graphique bi la graphique information yi ma lay jox graphique bi la lay defal fii rek gis nga voilà graphique bi période yi ak vidéo yi gis nga ba léegi vidéo yi la lay joxal comme ni ma ko waxee sànq voilà gis nga vidéo yi la lay defal fii boo tegee mu génne la vidéo bi gis nga gis nga vidéo yi nga déglu en ligne voilà boo wàccee fii suuf mu defal la type de source de trafic voilà 28 derniers jours yi gis nga source de trafic bi la lay expliquer ñi ñëw ci sa kanaal fan lañ jóge ñi ñëw ci sa canal ci nga 23 virgule 7 pour cent 23 virgule 7 pour cent yi ñoo ngi jóge fan page de chaine maanaam ci sa chaîne YouTube lañ cliquer directement ñëw dugg voilà parce que lool ay ñaari abonnés yi ñooy def loolu voilà léegi bu dee 19 virgule 7 pour cent yi moom ci recherche YouTube dañ doon wër dara ci YouTube tomb ci sama vidéo ñëw voilà boo xoolee 17 virgule 19 virgule 7 pour cent fii 17 virgule 7 pour cent yi boo xoolee autre fonctionnalité maanaam yeneen fonctionnalité YouTube lañ maanaam mu nekk ay euh, par exemple euh, ay euh, comme ay partage ak yu demee noonu voilà yeneen fonctionnalité yi nga xam ne YouTube ak ci yeneen application ñu lañ jaare ñëw voilà gis nga boo tegee fu mu bind la trafic généré à partir de YouTube qui ne rentre pas dans les autres catégories comme les vues obtenues grâce aux promotions de partenaires ou le tableau de bord waaw gis nga xam loolu leer na léegi boo xoolee fii 15 virgule 8 pour cent yi ñoo ngi ñëw ci fonctionnalité de navigation lañ ñëwee fonctionnalité de navigation euh, YouTube yi fa lañ ñëwee mooy YouTube baari recherche ak yooyu boo xoolee fii onze virgule un pour cent suggestion de vidéo maanaam comme ngay seetaan benn vidéo sama vidéo ñëw à côté nga doon seetaan beneen vidéo ci la beneen thème sama vidéo ñëw à côté nga cliquer ko onze pour cent ñoo ñëwee si loolu léegi li nga douze pour cent ñoom ñoo ñëwee ci autre maanaam muy nekk réseaux sociaux yeeg whatsapp ak yëpp boo leen boolee feneen foo xam ne rek partagé partagé nañ fa vidéo vidéo canal bi nit cliquer ko foofu ñëw directement ci vidéo bi doon ko seetaan loolu boo leen boole ñoo ñëpp ñoo nekk di nga pour cent voilà kon di ñi ëpp ñi ñi ëpp ñi xam ñooy ñoo abonné ci canal bi voilà parce que ëpp ñoo ëpp ñi xam ne dañuy seetaan vidéo yi parce que ngi nekk 23 pour cent yi foofu la jóge ñi nga xam tam dañuy def recherche ci YouTube ci affaire monétisation wala yu demee noonu tombé ci sama vidéo ñi nga ñoo si léegi boo ñëwee fii mu defal la impression et manière dont elles ont contribué à la durée de visionnage voilà impression yi ak euh, ni ñu wax sa durée de visionnage mu defal impression ja nga euh, euh, cent dix neuf mille cent abonnés cent cent dix neuf mille cent impression damaa jum stafurla cent dix neuf mille cent impression mu defal la vingt cinq virgule cinq pour cent voilà suite aux recommandations de votre continue par YouTube waa YouTube nit di seetaan sama vidéo YouTube indil ko Euh, nit di seetaan beneen vidéo YouTube indil ko sama vidéo à côté boo xoolee impression yi ma ci am YouTube ñi ñi nga xam ne présenté na leen ko ci ay impression maa ngi ci am cent dix neuf mille cent impression xam loolu c'est énorme voilà loolu YouTube ji nga lii promotion bu rëy la ma YouTube defal fii te promotion bi gratuitement la la ko YouTube di defal voilà te loolu mi ngi dépendre ci mots clés yi nga choisir ak façon titre yi ngay def ci lay dépendre kon nit buy seetaan benn vidéo YouTube gis na sa nañu relation YouTube indi ko à côté pour kooku bu mu seetaan sa bos voilà xam nga promotion bi bu am solo la te lii gratuitement la ko defal fayoo publicité fayoo dara voilà mu defal la ji nga taux de clic bi ji nga am naa si trois 3,6 pour cent ci ñi ko wan nii clic ñoom ñëpp cliqué nañ ci vidéo bi voilà mu defal la vues générées par les impressions ji nga 4300 vues am naa ko ci promotion bi ma YouTube defal noonu voilà gis nga durée de visionnage impression heure ji nga 334 voilà xam nga loolu baax na 334 impression heure loolu c'est bien peut-être promotion bu mu lay defal gratuitement la loo ci fay dara mais seulement il faut nga kii ko rek nga parametre sa sa ay mots clés ak yooyu quoi pour muy YouTube di gis ni yaa beneen vidéo yéen a xawoon rôle lu ngeen di wax ñu nga defal la fii source de trafic externe voilà mi ngi lay indi nag détail comme foofu mu la defaloon autre sànq data fi ngi la koy détaillé fii source trafic yi nga xam ne jotewul ak YouTube gis nga boo xoolee vingt neuf virgule cinq pour cent ci douze ci douze pour cent yooyu ci ci global bi boo ci jëlee nga taayu ko def ko cent vingt neuf virgule cinq pour cent yi WhatsApp lañ jógee voilà ñiy jóge ci si def recherche ci Google ci boppam def recherche dix neuf virgule trois pour cent laa ci am gis nga euh, application ji nga site internet bi ji nga six pour cent ji nga Facebook six virgule huit pour cent gis nga boo xoolee ñoo xam ne ci partage la par Gmail message nga ba léegi am naa ci 4 pour cent xoolee ci Gmail léegi résumé la pour vidéo ba ñu gudd trop sinon moo cliqué woon fii day gën a gudd ma leen explique ay détails mais yow mën nga cliqué fii pour xam yeneen source yoo xam ni ay nit jóge nañ fa pour ñëw ci sa vidéo mën nga ko xam fii di nga source trafic playlist yi gis nga montage vidéo playlist bi ëppul ñu si dugg seetaan mooy playlist bi ba dee montage ji nga li ma doon wax si njëriñu playlist yi gis nga playlist avantage am gis nga ko te playlist kenn bu cliquer ci playlist ma def montage vidéo yi ma ci def yëpp lay seetaan parce que automatique lay daw voilà te loolu mooy avantage yi nga playlist bii moo ci ëpp parce que def na 42 pour cent vidéo du jour topp ci def na 31 pour cent te vidéo du jour bi presque vidéo yëpp dugal naa leen si voilà gagner argent sur YouTube topp si ji nga formation film en wolof topp ci gis nga conseil monétisation en wolof top ci voilà yëpp ay ay playlist yu ma créé la boo demee ci canal bi euh, di nga ko gis mu defal yi nga source de trafic suggestion de vidéo maanaam su vidéo yoo xamante sa vidéo yi mooy boo mais nag boo calculer fii boo cliquer fii voir plus dina leen di liste bi yëpp yëpp yëpp yëpp mais euh, cinq yi ñooy ci ëpp yi ëpp du ko nit ñi seetaan ci ñoo xam ne dañ doon seetaan yeneen video vidéo yooyu am relation ak sama vidéo YouTube indi sama vidéo teg ko à côté def ko defal ko promotion sama vidéo yi ñoo ëpp lu ko YouTube defal promotion gis nga muy comment gagner de l'argent et cetera et cetera gis nga boo ko toppee ni nga gis ko voilà boo ñëwee fi mu def source trafic recherche YouTube ñoo xamante ne dañ doon recherche ci YouTube comment gagner de l'argent voilà tàppe ko sama vidéo bi gis nga am na 6 virgule 3 pour cent euh, pour cent ci euh, ci trafic bi ci ñoo xam ni dañoo tàppe comment gagner de l'argent sur YouTube ah, gis nga am ñoo xam dañoo tàppe Pape Mor Lo am ñoo xam dañoo comment avoir de l'argent sur YouTube am ñoo xam dañoo tàppe gagner de l'argent sur am ñu tàppe Filmora gratuit sans sans filigrane gis nga lii information bu rëy a rëy la la fi YouTube jox YouTube wan na ma ni moo clé bi fu nekk nii su ma ci su ma ci référencé sama vidéo gis nga buñ ko tàppee fii ci Sénégal maa ci jiitu pour génn parce que boo xoolee gis nga six virgule trois pour cent yi moo clé bi lañ doon tàppe di ko wër ci YouTube tombé ci sama vidéo dugg si voilà mu defal la ji nga source de trafic recherche YouTube koo xam dafa dugg ci biir YouTube doon wër comment gagner de l'argent sur YouTube tombé ci sama vidéo koo xam ne dafa recherché peut-être xam na xam na ni am naa ngi def vidéo am na ko nekk ku tudd Pape Mor Lo la mais xam xamul canal bi mu ñëw tàppe directement Pape Mor Lo bi mu tàppee Lo gis nga 3,9 pour cent ñoo tàppe Pape Mor Lo ji nga ñëw ci samay vidéo mën na am sax ñu doon tàppe tam Pape Mor Lo mbër parce que am na mbër bu tuddoon Pape Mor Lo mën nañu koy rechercher ay kiyom tombe ci sama vidéo seetaan ko voilà comment avoir de l'argent sur YouTube tam ji nga xam benn vidéo laaj defaguma te gis nga xamul li information yu rëy rëy la fi YouTube di joxe mën nga ko exploiter mën nañ fi nekk fii bu suba di leen jox ay di leen di di di di def ay plus yi nii di leen jox ay détails mais pour ngeen dugg ci seen canal yi ngeen def plus dem di xool euh, pour mën a xam mais dañ leen jox daal benn aperçu pour ngeen am lecture globale ci analytics ji nga engagement yi fii la quoi nga durée de visionnage maanaam li ñi temps bi ñëw di ko xool sa vidéo ji nga durée bi 54 euh, 5000 euh, astafurlah 587 virgule 8 ji nga heure gis nga mu nekk wàññeeku na par rapport yeneen 28 di njëkk ji nga trois pour cent durée moyenne de visionnage ji nga 4 quatre euh, day nekk euh, quatre minutes trente quatre wala wàññeeku na ji nga cinq pour cent parce que diire mooy bu mu defee diire moyen de visionnage parce que xam naa li ko waral mooy bu njëkk ba vidéo yi ma doon def ñoo doon gën a gudd vidéo yi ma mujj def presque ay seize vingt ba ay trente minutes en général te dama doon def ay vidéo yoo xam day mat ay une heure temps wala demee yooyu la ëppoon nit ñi lu ñu ciy toog di ko seetaan mais léegi comme yu si bëri woon naa ko léegi nag kenn bu ma laajee dara si benn euh, problème fekk wax naa ko ci vidéo bu gudd des fois day compliqué pour mu dem ci vidéo te loolu kese moo ci intéressé yu yóbbu ci bëri ma jëlaat leen def leen ay vidéo yu gàtt pour boo waxee rek man la vidéo titre sàngam ngay wër di nga fa gis euh, sa réponse waaw ah, pour mu gën a pratique quoi voilà loolu moo tax ji nga durée moyenne bi gis nga dafa dafa chuté man comprendre naa loolu moo tax ko di nga baar balee graphique bi de la la defal fii boo xoolee foo teg rek si benn chat boo teg dina la jox information jour bi defal la nombre bi tamit voilà boo tegee fii tam mu defal la détails yi joxal la vidéo yi comme fële nga ñëw fii gis nga mu defal la vidéo les plus regardées mu ngi nii ji nga vidéo les plus regardées mu defal la ji nga pourcentage yi vidéo yi ëpp luñ ko lu ñu ko seetaan voilà gis nga mu defal la vidéo les plus regardées par écran de fin maanaam gis nga écran de fin gis nga njëriñam fii ñëw na yaa ngi koy comprendre voilà parce que mooy nga nga wax benn affaire pare ci fin bi nga def benn vidéo pour ku par séance de vidéo ba pare mu cliquer ci boobu dem ci beneen vidéo yi écran de fin yi la voilà parce que YouTube lu si nekk rek dina la indil dara di top des playlist playlist yi nga bu ko néglige yi yi playlist moom ko indil comme ni ma la ko expliqué fële euh, type d'élément de fin les plus performants yi façon bi écran de fin bi ma def yi gën a baax gis nga moom la mu defalal dernière vidéo mise en ligne di nga playlist s'abonner contenu adapté au spectateur si nga kon bii dootu ma ko def parce que zéro pour cent ñëw ci créé contenu adapté waaw boobu doxul voilà bi gën a baax mooy nga choisir benn vidéo ji moom la mu wax fii def ko parce que ji nga moom mi nga am 15 virgule 4 pour cent voilà dernière vidéo mise en ligne bi ji nga moo ci topp waaw kon boo defee léegi man samay euh, écran defee dinaa xam léegi yan laa ci def mooy yëpp vidéo laa ci def nii la analytics lii lay jëriñ waaw da wax lu ëpp njëriñ pour nga xam ci lan ngay gën a wu yeneen yi nga bàyyi ko voilà li nga fii mu defal la top des fiches maanaam fiche yi ma def ban moo ci gën ëpp luñ ko ko cliqué gis nga bii la problème de monétisation réutilisation de contenu voilà mooy vidéo bu def ci kii bi ci li nga war a vérifier sa canal avant ngay envoyer demande quoi moo gën a am pertinence voilà gis nga léegi ñu ñëw fii nga xam ne mooy audience boo ñëwee audience tam comme d'habitude gis nga mu defal la spectateur unique vingt huit derniers jours yi ñi seetaan vidéo yi boo leen compté benn par benn nit def nañ mille sept cent personnes seetaan nañ ko voilà nombre moyen de vie par spectateur gis nga euh, kenn ak ak kenn ku nekk def na minimum quatre vie xool na xool na xool na samay vidéo xool na quatre vidéo ci chaîne bi boo xoolee fii gis nga nombre abonné yi gis nga deux cent quatre-vingt-dix abonné ñoo ci yokk voilà boo xoolee graphique bi même soo ba léegi la lay jox vidéo yi nga ñëw moom la lay nga ñëw fii ji nga durée euh, de visionnage des abonnés gis nga abonnés yi man samay abonnés ñoo gën a fidèle parce que ñoo ëpp temps bi ñu toog sama vidéo di ko xool te day ñëw xool dara après ñëwaat bu subaa xoolaat ko peut-être duñu comprendre wala dara boo xoolee 67 pour cent abonnés yi la ñoo ëpp lu ñu seetaan vidéo yi ñu abonné ba pare voilà ñi nga am seetaan nañ te abonné gu 32 pour cent ñoo xam seetaan nañ te abonné wuñu xam nga ñoon da leen di sóoraale jéem leen tam convaincre pour bu ñuy seetaanee par ñu abonné loolu moo tax appel à l'action bi ngay def ci fin vidéo bi am solo pour bu ñu seetaanee ñu mën ñëw abonné parce que 32 pour cent bu ñuy seetaan say vidéo te abonné wuñu ñooñu war ngay fexe ñu abonné voilà te loolu appel à l'action moo koy mun def mu ñëwal la fii nga euh, notification envoyée aux a avant euh, ayant activé la maanaam abonné yi nga xamante ni euh, dañoo abonné ba pare activé notification bi gis nga boo xoolee 57 pour cent ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci euh, dinañ dinañ jot message yi seetaan ko boo xoolee mu nekk ñu nga 6 687 maanaam abonné voilà boo xoolee fii euh, abonné ay activer euh, le paramètre toutes les notifications gis nga 34 pour cent la gis nga 409 lay lay indi wala boo ko boolee ji nga dalay indil 1000 et quelques abonnés mu nekk presque kon ñëpp ñu abonné ñëpp ah kii nañ cloche notification yi à peu près voilà. boo xoolee mu wax ma fii ne ma âge ñi nga am ñu ëpp ñuy seetaan sama vidéo euh, ci 28 derniers jours yi information yi ma lay wax ne nag 28 derniers jours la concerné con concerné wu canal bi mu ubbee ba léegi voilà léegi mu nekk fii femmes yi nga xam ne ñi ngi seetaan vidéo yi 0,7 pour cent wu jigéen ñooy seetaan vidéo yi nga jigéen ñi kon nañuy gagné xaalis si internet intéressé wu leen noonu fii ci Sénégal góor ji la gën a intéressé di nga 99,3 pour cent boo tegee 7 pour cent mu 0,7 mu nekk 100 pour cent xam nga 99 daanaka téeméer boo jël daanaka juróom-ñeent fukk ak genn wàll <laughs> wala juróom-ñeent fukki ak juróom ñeenti yi ay góor lañ voilà. xam loolu tam da lay dimbali nga xam kon sa compte yi nan nga si adapté xam nga ne kon jigéen ñi gën a xaalis intérêt fii Sénégal intéressé wu leen góor ñi la gën a intéressé ci biir góor ñi mu indi la âge yi ñi am diggante 13 ans ba 17 ans gis nga set pour cent lañ ci ñiy ñëw di seetaan sa sa sama vidéo yi. ji nga mu defal ma fii dix ñu am dix-huit ans ba vingt-quatre ans ñoom ji nga 63 pour cent lañ kon boo xoolee man cible sama cible boo xoolee fii la diggante ñi am 18 ans la ba ñu am 35 ans waaw ah, boo xoolee defal na ma ba 24 ans ji nga ñëw ëpp muy 61 pour cent mu demal 25 ans ba 34 ans ñoom gis nga 23 pour cent lañ voilà ñi am 35 ans ba 44 ans parce que ñi romb 44 ans jëm dañuy defe ñoom xam YouTube nekkatul seen mbir la ñuy yëfi xale la moo tax duñ ci ñëw ñaare voilà. kon boo xoolee 30 mën naa ko yemale fii 18 ans ba 35 ans ñu man pi ñoo ñooy sama sama sama sama public cible ñooñu ñoo ñoo ñoom la lii intéressé li may def kon su may defee daal ñoom laay war a gën a sóoraale parce que ñooy ñoo ma gën a intéressé parce que ñiy def ñii boo xoolee ji nga ñii am 35 ba 4 ak kii ki nga par xoolee 4 pour la ba léegi tane da mën nañoo dem kon ba 45 ans voilà boo xoolee 45 ans 54 ans 1 pour cent la bu rombee nag 55 ans ji nga kenn ku passé 55 ans ñëwul ci canal bi voilà canal bi daal moo ngi cinquante quatre ans mën nañu ko def cinquante cinq ans booy passé cinquante cinq ans non non voilà la intéressé boo xoolee pays yi ëpp lu ñuy vi cliquer sama vidéo yi ah naturellement mu doon naa xaar sama nekk quatre vingt dix pour cent Sénégal li nga quatre vingt ko def yi laa ko def voilà def ma ko anglais def ma ko français ji nga am naa 0,4 pour cent ñoo xam ni États-Unis la ñu nekk peut-être ñooñ Sénégalais yi fa nekk la tamit voilà ñoo koy suivre Maroc sénégalais yi fa nekk 0,3 pour cent France yënga sénégalais yi fa nekk 0,3 pour cent waaw France moom la ñu fa xam ñu koy suivre parce que dañu may envoyé message quoi. Guinée ji nga nangam boo ma bëggoon cliquer fii muy ni ma yeneen dëkk yi liste dëkk yëpp nga xam ne seetaan nañ sama vidéo fii la ma koy indi su cliquer plus mais da indi rek ji nga euh, cinq yi nga am ne ñoo si jiitu voilà. boo ñëwee fii mu ngi def top des langues de sous voilà. langue sous-titre yi ji nga vidéo yi def ma ci sous-titre 99 pour cent def ma ci sous-titre mu def fii euh, français anglais néerlandais def ma ci sous-titre ah, ñooy koy sous-titrel seen bopp léegi boo jógee foofu mu ñëw la fii revenu su fekkoon léegi nag dama ko monétiser fii la lay indil nag revenu yi ngay teg fii comme mu def courbe nii foo teg moon la jour boobu li nga fa gagné jour boobu li nga fa gagné jour boobu li nga fa gagné dinañ leen kon ci benn canal léegi boo xam ni buñ ko filmé partie revenu bi kase kase lañ leen woon pour ngeen bañ a xam gan canal la voilà bu ko defee ñu wan leen nga tegal leen courbe bi ngeen mën a gis quoi voilà duñ leen tegal tam ci vidéo yi pour comme ngeen di xam vidéo yi nu mu mel mais dinañ leen tegal daal ci courbe bi pour ngeen gis li ñuy expliqué ngeen mën ko xam canal bi nag bu demee ba monétiser moom dina ñëw détail monétisation yépp ci analytics suñu defal leen ci vidéo incha allah rabbi voilà loolu moom bu soobee yàlla euh, dinañ ko def voilà léegi am nga foo mënte ñëw tam nga ñëw fii mode avancé ba léegi mu yóbbu la foo gën a sori tuuti indil la ji nga beneen page la lay indi gën la fii nag dalay lay gën a jox ay détails voilà fii tamit moom day ñëw si beneen vidéo mais moo fee rek ñoo xaw a yem seulement fi da jox ay gën a jox ay détails comme mu defal la fii ay ji nga source de trafic indil la ko defal la baar bi baar bi lay defal ji nga da lay toppal toujours cinq yu jiitu yi nga passe de recherche recherche YouTube pour autre fonctionnalité fonctionnalité de navigation suggestion de vidéo mu defal la nombre yi defal la pourcentage yi defal la durée yi defal la moyenne bi impression taux yépp benn bu si nekk yi nga couleur bi mu am comme par exemple mu defal les passe de recherche nga couleur bu bleu carré bleu la ko def mooy nekk ligne bu bleu bii la soo ko bëggee information ligne bu bleu bi ngay topp voilà deuxième bi recherche YouTube ji nga carré bu verte la la ko defal ji nga baara mi ngi nii daa verte nii soo ko baar bu ligne bu la moo ko concerné nekk ci yi couleur bi mu correspondre fii loolu la concerné voilà ñoom ñëpp ñu defaroon leen boo bëggee nag yaay teg ci couleur bi nga bëgg pour mu jox la information voilà boo ñëwee teg fii mu jox la bu kii mu jox la boo tegee la comme noonu la te boo foo teg tam ji information détaillée la lay jox gis nga lim la bindal nii 12 mars da la fay jox information fonctionnal navigation ñaata ñoo fa jaar passe de chaîne fii moom détaillé la lay jox ko voilà gis nga mais comme vidéo bi bañ mu gudd trop di compliqué dinañ ñëw beneen jour ci analytics defal leen fii beneen vidéo analytics ci li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, mode avancé pour ngeen gën ko xam pour daal analytics ngeen mën a xam en gros information yi mu leen mën a indil pour ngeen xam nan ngeen koy dugal intégré ci seen ci ci li ngeen di liggéey ci YouTube di sooraale information yi leen YouTube di jox voilà heure yi nga xam ne moom la ñuy seetaan seen vidéo ngeen xam heure yi gars yi di gën a yi gaan yi gën a disponible pour seetaan ngeen di dugal heure yooyu seen i vidéo loolu yëpp daal voilà ak fan lañ leen di imprégné seetaane góor la jigéen la Sénégal la France la wala xam nga loolu dafa baax voilà dalay lay dimbali bu baax ci li nga war a def kon vidéo bi duñ ko duñu duñu duñu ko du passé fi fii lañ ko yemale xanaa rek connecté wu ci beneen kanaal boo xam ne moom mi ngi monétiser wan leen bu bu monétiser pare ni muy monétisation ni muy feeñee pour ngeen mën ko comprendre voilà comme gis nga comme ni ma leen wax sànq gis nga canal bi moom monétisé na moo gis nga indil la nombre de vues indil la durée moyenne de de de visionnage par heure yi indil la abonné yi ji nga la fii montant bi nga xamante ni moom la moom la gañeegum voilà ci 28 derniers jours yi voilà boo xoolee 28 derniers te taw ñoo ngi 31 mars kon mois de mars bi yëpp lii la gagné 76000 la gagné si mois de mars bi par par jour comme ni ñu la ko waxee sànq rek gis nga mu indil la ko par jour voilà mais duñ la tegal ci vidéo yi parce que dañuy bañ nga xam ban canal la moo tax duñ ko si teg voilà mais daal ban niñ la ko expliqué fële pour nga mun ko comprendre bu ñu changé tamit euh, kii bi période bi def ko beneen période tamit di nga gis loolu day génn fii comme par exemple ñu ñëw fii di nga temps ñu defee 28 derniers jours la def waaw bu ñu changé par exemple euh, hmm, na lañ koy def sax euh, def ko 90 derniers jours waaw ah, donte gis nga donte canal bi bi monétisé yàggul euh, deux mois la toll di nga deux mois yi nga monta defal na la montant bi mu fi gañ ci deux mois yi voilà lii la fa gañ ci deux mois yi ci monétisation voilà nga xamee ko noonu comme ni ñu la ko doon wax sànq monétisation bi euh, noonu lay demee voilà bu ñëwee fii comme waxoon nañ la tam dinañ ñëw fii revenu woon la voilà bu ñu cliquer revenu gis nga détails yi lay indil gis nga war na la fii euh, xaar ñu indi ko 28 derniers jours voilà 28 derniers jours di nga 76 656 francs la gagné di nga lecture monétisée STP 274 cent fois yoo xam ne seetaan nañ ko vidéo yi te vidéo bi heure seetaan bi nga ko seetaan mu monétisé nombre bii la voilà boo xoolee CPM basé sur les lectures maanaam mille mille mille vues yu nekk lii la ci euh, canal bi gagné 518 francs xam nga 518 francs boo ko xoolee ci euro mooy 1 euro boo xoolee kon 1000 viewers gagné na à peu près loo xam ni si si si C mu basé ko ci CPM bi voilà ci CPM bi la mu ne coût par mille basé sur les lectures maam ci vidéo yi nga xam ne nag am na lecture ñu monétiser ko yooyu kese la calculer calculer wul yi nga xam ne yëpp daw na te monétiser wuñ ko ba mu leeral ko détaillé foofu léegi noonu la demee gis nga graphique boo ñëwee jëga da la indil samedi le 7 mars 4497 moom lañ fi gagné fii mu indi la dimanche mars ñoo ngi fi gagné 3000 mu indi la lundi 9 mars mille indi la fi mardi 10 mars mille fi nga mercredi mille jeudi 2000 vendredi mille samedi 2000 nga dimanche voilà noonu la koy jàppalaa jour par jour yi nga graphique jour par jour yi nga fii moo ci gën a yéeg muy jour bi moom 4000 la parce que moo gën a moo gën a yéeg voilà fii moo gën a wàcc muy 1500 la fii voilà nii daal mooy boo monétiser moom nii la koy indilee quoi nga xamee ko noonu waaw dañ leen ko doon war rek pour pour ñi nga xam ne monétiser nañ moom ñu xam ni détail bi moo si yokku suñu wàccee ci suuf tam dina la jox ay information ci monétisation waaye nag mënuñu wàcc ci suuf parce que bëgguñu tam joxe ay information confidentielle nga nag bu ñu demee nag ba gaal seentu monétiser woon dinañ leen wàcceel ci suuf wan leen information confidentielle incha allah rabbi ba lay bu dee abonné goo ci canal bi vidéo bi ngay seetaan bu fekkoon moom nga nekk di seetaan nii tey exemple c'est simple boo seetaanee ba pare nga ñëw ci suuf vidéo bi bouton bu rouge bi nga cliquer s'abonner boo cliquer s'abonner ba pare dina am euh, benn euh, cloche notification bu génn cloche notification bu génnee nga cliquer leen ñetti génn nga cliquer bi ci kaw bu ko defee nga nekk membre ci canal bi nekk bokk ci communauté Galsen Tube bi te jàpp tam vidéo bi boo seetaanee pare jàpp tam na solo bul fàtte nga cliquer bouton partager partager ko ci réseaux ñeneen mën si jot mën si jëriñu kon mu ngi lay sant di la gërëm di la jox rendez-vous ba vidéo bi di ñëw incha allah rabbi jërëjëf. ma lay demandé nag su fekkee nag euh, abonné koo ci canal bi c'est très simple. boo cliqué ci fii ci bouton bi gère wi boo ci cliqué rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné na nga ba pare nag cliqué vidéo bi nga seetaan ko mooy vidéo bi ñu mujjee dugal moom it ay mbir a ngi ci ay tips ak ay secret.